Il la avoir courage aussi de la dire à haute et intelligible voix nañu delloo groupe Walfadjri dafa ñaaw que groupe Walfadjri ca Abdoulaye Wade ñu koy def percussion parce que euh, parce que bu leen fàtte ne kii de sunu papa Sidi Lamine Niass demoon na organiser manifestation place de l'indépendance parce que boobu c'est le pouvoir de Wade ñoom ñoo ko doon bundu xatal président Macky Sall mi toog ñu ubbil ko plateau muy wax lu ko neex tey jii moom ci boppam ñu gisaat lan ne moom régime am il est allé plus loin sans élégance républicaine sans élégance tout simplement contre le groupe Walfadjri nañ am fulla suñu bopp bu ñu amul fulla suñu bopp nag lu ñuy wax rek bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala di sant ñëpp di gërëm ñëpp